الله حي صمد وباقي سبحانه ذو كنف وواقي ونحن في كنفه المنيه من كل شر وأذى شنيه مستمسكين بالخياس أحمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من قالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء السلام عليكم بوك جل إن شيطان أبوك تالي bu gisee jotaay bii xam ni jotaan na ndigal nag ci Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalifa général di mu yàlla na fi yàgg lool te ànd ak mu jaar mu jaar nag ci rakkam ju baax ji Serigne Mountakha Mbacke ngi nii toog kàddu yi na jóge ci Serigne Cheikh Sidil mu bëgg ñëpp dégg ko mu woo Serigne bi ni ko jottali ma kàddu yi àddina bépp dégg ko dégg ko julli dégg ko taalibe dégg ko nañ jëru Serigne Mountakha Mbacke moom Cheikh monsieur Sidi Mokhtar wax ni ko jottil ma sama kàddu yi nit ñëpp teewlu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki taalibe yi bokki jullit yi bokk yi am nañ ndigal ci dellu saat ci yëglukaay yi ndigal li mooy jottali Cheikh Sidil Mokhtar Eh, ndigalam ci mboolem mboolem taalibe mboolem jullit yi mboolem mbokki Sénégal yëpp ni ko baaxoo defee rek moom liggéey Sëñ Tuubaa rek mooy itteem ti itte ji di di itte ju ri ju kawe jële ko rek ca ndigal lu jëkk la sëriñ bi amoon ci na yar nit ñi na yar ñooñam ci yitte loolu moo tax Cheikh Sidil Mokhtar eh, eh, def yitte muy léppam jëmee ko ci lépp liggéey sëriñ bi rek ci wàllu gune rawatina eh, di yeesal ndigal loolu jëmee ko ci mboolem bokki taalibe yi mboolem bokki jullit yi mboolem bokki Sénégal yëpp yitte ji nag moo di rek dafa santaane ñu daal di ñu jëmee xel yi xol yi yëpp eh, ñu ko ci nag liggéey liggéey bii nga xam ne mooy naat bii nu jëm joxe ndigal ne tool yi moom euh, nañ ko tàmbali ci bisu talaata bii di ñëw na ci ñëpp bàyyi seen xel ñëpp def ci seen itte yu sëkk euh, li muy jege-jege na kenn ku ne xantewoo jëfe ndigal li ñu kenn ku ne na jéem a euh, ak kem kàttanam fas yéene tàmbali tool yi ci talaata ji di ñëw loolu la joxe ndigal loolu rek moo mooy yitte ji ma wax rek sëriñ bi dafa def ko xam ne sëriñ bi rek a yitteem te yitte mooy lépp ndax mooy ndigalu njëkk li kon moo fi nekk te du fi jóg waxtu wu ki nga xam ni moo fi nekkal sëriñ bi waxtu wune loolu mooy yitteem mooy liggéeyam mooy ndigalam soññ nit ñi rek ci ñu delloo seen seen lépp ñu delloo ko ci yitte rek moom nag alhamdulillahi rabbil alamina eh, yitteem dafa rëy eh, yitteem dafa rëy lool te kawe lool eh, loolu nag noonu rek la ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin loolu noonu la euh, ju moo nekk fi moom yitte ju kawe moo nekk fi moom euh, ndax li nga xam ne mooy mooy liggéey bi di lislaam euh, ilaahu moom rek moo fi nekk yëkkati baat surom bi gën a kawe baat sunu borom bi gën a kawe loolu mooy liggéey bi loolu nag ci yitte rek lañ ko mën a amul leneen luñ ko mën a ci yitte rek lañ ko mën a yitte ju rëy yitte ju kawe ni nga xam ne noonu la ko noonu la ko suñu borom ci sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar euh, muy euh, yitte ju jëkk nga xam ne moo doon digalal euh, sëriñ bi ci diggamu borom kon dafa bëgg rek nu nu nu jariñu nu nu jariñu biir ak biti di jëriñu tey tey ëllëg loolu lépp nag yitte rek lañ ko lan lan ko lan ko mën a defee waaw kon nañu góorgóorlu bu baax ci eh, wax na it li ko gën a ñorati nag moo di nee na ñi jóge woon ci tool yi yëpp kenn ku ne fa nga jóge woon na fa dellu eh, eh, def fa sa wartiif ci dundal barab ba ak noo ak noo ak noo ko mëne moo xam sa jëmmi bopp la moo xam sa sa man manu bopp moo xam ak lu mën a doon rek eh, na yitte joo xam ne eh, luy luy luy luy dundal barab ba la waaw mm, sëñ bi moom eh, loolu rek la ci bëgg daa bëgg ñëpp delloo seen bopp ci itte loolu nag dara gënu ci gënu gënu ko mën a feeñal loolu nag fàttaliku mm, kenn ku ne barab ba nga jóge woon ak ak foo ma nekk di fa liggéey itam nga nga nga bàyyi xel nag fa nga jóge woon fa dundal ko sa kem kàttan eh, sa jëmi bopp sa wërsëgu bopp eh, sa sa man sa sa man-manu bopp sa sa lépp daal nga nga jëmee ko ci barab boobe eh, dundal ko soññ sa bopp soññ sa soññ sa soññ sa mboolem ña ko bokkal loolu bu amee rek day day day waral rek réew mépp day day day day day gën a dund di gën a yees waxtu wu nekk di gën a wéttaliku eh, ni mu ko waxee itam moo di eh, képp ku jóg it dellu fa nga jóge woon fas yéene fa fas yéene fa fas yéene fa eh, liggéey da da da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay jëfe ndigal li rek te dem nag xam ne suñu borom nga fay fekk nga tàllal sa loxo suñu borom te te te te bàyyi ko ak sa bopp te def def ci def ci la ci sa yéene def ci la ci sa positif da ci def ci sa yitte yëpp euh, sa kem kattan loolu noonu la ko santaane loolu nag moom suñ suñu njëriñ rek la njëriñ suñu njëriñ la nun ñëpp waaw nun ñëpp suñu njëriñ rek la euh, moo njëriñal réew mi itam ni ñu ko bokkee eh, ni ni ni ni leen war a gën leen war a bokkee gën a jóg eh, ci lépp loo xam ne luy dundal réew mi la lépp loo xam ne moo ko jëmee kanam loolu nag dara ci ituwu ci kenn ku ne am nga foo bàyyikoon am nga foo bay bàyyikoon ci liggéeyukaay yi ci ci ci ci ci réew mi eh, foo xam ne sëñ bi dafa bëgg rek ngeen delloo fi delloo xel yi delloo xol yi jëme itte yi ca barab yooyee waaw seen kem kàttan loolu bu ko defee rek eh, eh, day day tax rek eh, réew mi gën a gën a dund gën a gën a gën a mucc gën a wéttaliku gën a mën gën a mën a jekk gën a mën a jekk gën a mën a man boppam waaw loolu ñun ñëpp ko bokk kon sëriñ bi loolu rek la ci jublu suñu njëriñ rek la ci jublu waxuma la sax njëriñal saahir li waaye njëriñal dafa day njëriñal baatin njëriñ baaxuñ la boo xam yoo xam yoo xam ne amul fen fu mu yem ndax yitte lu sotti yitte koy sotti te itam buñ koy wax ndegam ndegam ndegam ndegam adduna rek yitte ko yitte ko yitte koy defar as nag àllaxira nga xam ne moom moo jëm moom lañ jëm kon euh, ñëpp ñu xamee ko noonu sëñ bi jublu ci dara loolu euh, bëgg nit ñëpp nu ñëpp delloo suñu bopp ci itte ji nga xam ne moo doon cosaanal yoon bi kone ne xam na ne eh, yittee mooy sabaanu mooy sabaanu sàggan eh, kon sëñ bi daa bëgg rek nu def nu nu nu nu góorgóorlu suñu kéem kattan dellu suñu bopp ci eh, itte ju mat te gën a gën a gën a gën a daw suñu xelu bakkan lépp luy niru càggante waaw suñ nu jëmee suñu lépp ci itte loolu mooy cosaan la yoon bi kon ëllëg ka nu jëm moo moo mooy mooy li nga xam ne euh, yitte yitte rek lu lu lu lu ci lu ci lu ci nit am rek yitte la ko yitte gannaaw tawfiq waaw ak ndimbalal sama borom yitte la koy may kon yitte moom naka jekk mooy cosaanal yoon bi ñu xamee ko noonu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax suñ lépp ñu jëmee ko ci yitte te noonu ko sëñ bi santaane ñu defee ko noonu jëmmi tool yi moom na ñëpp ah, maase def jëfe ndigal li fexe ba kenn ku ne rek talaata moom na nga ta fa nga fa nga fa nga bëgg fa nga bëgg a ko tàmbali te itam ba def sa xel nag bu baax a baax nag ci fas yéene delloo sa bopp nag ca kenn ku ne fa nga jóge woon barab ba nga jóge woon nga def ci sa xel def ci sa def def ci sa def ci sa itte eh, eh, eh, am am am yéene yi dundalaat barab ba ba ba mel na nga xamee na ko fekke woon wala nu ko nu wala nu ko raw loolu loolu loolu rek la loolu rek la <laughs> loolu rek la. <laughs> Euh, jërëjëf sëriñ Mountakha Mbacké yan yal na nu yàgg a digal te mu jóge ci sëriñ bi euh, yitte ji rek mooy kon ya ca jëkk mooy sëriñ bi nee bu talaataa ne ñëpp dellu ca tool ya ñu tàmbale ko talaata waaye nañu bàyyi yitte ci casaan yi ak fa nu jóge woon ndax loolu rek mooy ndigal lool rek bëgg ñëpp jaruñu nag moo tax mu wax nu ko sëñ moom lu ma sa digle lu ne sunu njariñ la ñun ñëpp kon nañu bàyyi yitte ci cosaan yeeg démb te ñu dellu nag waaye talaata bii di ñëw daal moom na ñëpp xam ni ca la ñuy lu waay tàmbali ci tool na ko tàmbali te ñu bàyyi xel cosaan yi nag te ñu dellu xoolal barab bi dekkal ko loolu mooy ndigal li nga xam ni moo bay ko ci Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké yal na nu yàgg digal Mbacké yal na yàgg yàgg jaar ci yow ta nu yàgg ko ci seen ndigal yal na nu yomb bi hurmati rasulillahi allahumma salli ala sayyidina waaw nee na nee na ñor na ko lool nag nee na na ko ñëpp yëg. na ñëpp jottali leen. nee na na ñëpp ku déggulit na nga ko jottali ka nga dendal nee na mooy digal li na ci ñëpp bàyyi xel jërëjëf Mbacke.